ation kii yu nu yu nu mel Karim fan yi moom tamit eh, day bind rek day wax rek day wax rek gis nañu temps yi daal réaction yi bëri na bëri na trop ñëwaat ci ci négociation boobu ak eh, Karim Wade li ci wax ak eh, la réponse sale de Boubacar Camara waaw il fallait s'y attendre parce que il faut que d'abord ñu taxaw tuuti ci mbiri Karim Wade mm. parce que lii ñu nekk nii bu doon jëye la dama naan bu ñu séddale pourcentage yi Macky Sall boo amee soixante-dix pour cent yi Karim Wade trente pour cent yi mm-hmm. parce que am na ci bëgg-bëgg bi tamit ba léegi mi ngi tàccu mi ngi jubilé mi ngi wane ne li mu bëggoon am na ko bien vrai que nag dañ ko si jàppale parce que mm-hmm. bu ñu ko si jàppaloon du yegg moom kese amul doole boobu mm-hmm. donc loolu benn benn mbir la mais Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade mi ñu génnloo sa ëllëg sa mu génnaat naan Boubacar Camara mi ngi si mi ngi si jàpp maa koy wax sànq samay entamu kàddu mm-hmm. ñoom dañoo nekk situation boo xam ne fi ñu ñu bëri ci askan wi dañu leen a mere mhm. te ku moytul danañ la boole ci mere bopp mere waale leen yi ñëpp ngeen bokk nag nekk axlu ñu ñu mere yi ñëpp benn yoon mhm. moo tax ma ne il faut ñu def attention ñu def attention ci li nga xamante ne képp kuy communiquer ak ñoom ak lu jëm si ñoom lii mu defal euh, Boubacar euh, Boubacar Camara c'est-à-dire ñoom actuellement dafa toll foo xamante ne lépp lu mu gis rek ne war na ko mën a dimbali pour nit ñu jàpp ne dañuy légitimer li nga xamante ne mooy coup de force bi ñu def rek baax na képp ko mu dégg ne dialogue na dañuy dialogue nañ dem waxtaani ji parce que foofu la problème bi nekk actuellement mm. mooy ñan ñoo dem toog ci table waxtaan ak Macky Sall boo mm. gisee dana woon semaine bii nañ lancé dialogue ba léegi waxaguñ ci mooy amaguñ certitude mm. maanaam bu woote woon dialogue tey ji amul échec total lay doon lan moo waral jàppaguñu dat tay tay tay li ñu bëgg suñ ko amoon suba suba ñu jàpp dat ne dialogue bi jàpp nañ ko samedi wala mhm. wala dimanche mais lu ñu bëgg la ñu amagul leader yi ñu bëgg ñoo toog stable la ñu amagul mhm. bu la Thierno Alassane Sall wanee ginnaaw taxaw wan la ginnaaw Pastef wan la ginnaaw kan nga dese mhm. Karim Wade kese ngay dialogueel ak ñan ak ay recalé ak benn parti ak ñaari parti ñoo xam ne boo leen dajalee matuñu quinze pour cent ci euh, ñu ñu mën a dajale 15 pour cent ci électorat au Sénégal bi si su boobaa di nga xam ne dialogue woo ko loolu moo tax nag fi ñu toll ñu am jafe-jafe yooyu mais Karim dafa war nag revenir à la raison parce que doo ñu dugal ci benn guute ba pare di ñu kokkali dafa mel ni fi ñu toog ku ñuy ñaawal. tëdd ca dowaa di di wax dafa dafa war a xam ne te yow nga nekk sa jàmm dafa war a xam ne coow li mu fi yëkkati ak lii nii moo war a ñetti bakken daa faatu nañ ci mm. am na ay nit ñu ci am ay blessure am na ñu ngi ci leen di ñu ñoo mm. xam ne fi ñuy wax ak nii ñi ngi dem gis ji procureur ñenn ñi defeere nañ leen ñenn ñi jàpp nañ leen mm-hmm. ñooñu ñëpp lii moo ko waral ndax su bàyyiwoon ñu dem campagne ñooñu kenn du leen jàpp heure bi ñu ngi di campagne seen leader kon moom am na ci responsabilité doo ñu dugal ci guuta googu ñu nekk ci crise àddina bi yëpp dañu mbamb ba pare nga ñuy kokkali naan diw dugg na seeg maa ngi tàccu euh, dialogue bi nga xam ne Pastef bi ñu ko waxoon fii kenn dialogue fi tay kenn dialogue fi suba kenn dialogue fi ginnaaw suba dëgg gi lenn la mooy ñu wax président Macky Sall mu respecter le calendrier républicain su mënul nekk ñu xool naka la ñuy def ba amal ay lu mu gën a gaaw gaaw gaaw gaaw ñu def ay ki ki ki sénégalais wóolu tabb ko mu dem bopp mu nekk ci bopp réew mi waaye nekkuñ fi ci ay dialogue ak ay waxtaan yi ñuy waxtaan déedéet déedéet Thierno Alassane Sall wax na ko ci texte bi mm. Sénégal bokk na ci li ko sànq mooy duñ waxante dëgg dañuy maslaa mm. te loolu problème la souvent boo waxee ñu ne masla masla masla boobu dafa nekk dafa am ay effet pervers maanaam góom boo tay boo gisee xale bu mu am benn taab da nga ko yóbbu ci docteur ba mu def ci alcool frotter ko mm-hmm. désinfecter ko mu metti xale bi yuuxu pendant dix minutes mu pare nga jëndal ko bonbon mu lekk mu dem toog na le ñaari fan ñetti fan gumbi cicatrisé wu tab bu wér mu dem toog na le mm. waaye doo xool xale bi am tab nga ne su ma sa defee alcool day saf nga daal di dem jënd bande sa sa bande collante ci boutique bi ñëw taf ko ci tab bi dem jël sa bandage laxas ko ci ne ko demal nga toog na le après di nga da ngay rey xale bi tànk bi dañ koy amputé mm. kon fi ñu toll nii fi ñu toll nii nii da nga koy faj mu wér nga xoos ko mu mu mu saf benn yoon mu mm. jeex foofu lañ toll foofu lañ toll mais su fekkente ne euh, tey jii dañu dañu am benn situation bu ñu toll nii rek ñëpp ne waa nañ dem dialogue ji nañ amnistie ñi amnistie pour lan hmm. dialogue pour lan ñaata bakkan ñoo fi tëdd léegi da ngeen dem dialogue daal léegi problème benn benn habitude daal lañ bëgg am léegi hmm. léegi moom ñoom ñii dañuy faatu ñii ñu tëj leen ñii ñu yàqal leen seen ay marchandises ñoom bu ñu toogaatee 3 mois 4 mois ñu ne eh, dialogue prip ñëpp daw dajaloo toog ba hmm. ñu ne dialogue nañ après effacé nañ ñi ñuy bokk bokk nañ après on continue ku nekk défendre ses intérêts léegi justice kañ bi kañ la ñuy àtte ñi tooñ ñu leen yéen a tooñ. kañ la àtte ñi am dëgg ñu leen yéen a am dëgg. kañ la àtte ñi ñu tooñ ñu ne dañ leen a tooñ. am amnistie suy am sax est waruñu àtte ba pare est-ce waruñu àtte ñi nga xamante ni tey ñoom la war a amnistie ba xam. ñan ñoo ko kan moo def kan moo def kan moo def lan parce que Macky Sall sax Macky Sall sax ñi eh, eh, ñi ngi koy tuumaal ne ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu moom moo leen faatu ah. donc moom il ñoom dañu euh, taxaw procureur bi génn. dem ci am ay amnistie yu ni mel. waaw dañu taxaw procureur nit hmm. ñi fi faatu mois de mars ba léegi Ousmane Sonko ko waral. ndax moo woote ñu faatu. Hmm. waaye ngeen jàpp ne benn nit moo woote. ñu ne plus de cinquantaine de personnes bakkan tëdd na fi mars 2021 hmm. ba tey waaye kooku ngeen bëgg xëy faat ko kon yéen yéen ngi faat yéen a ngi baal kon criminel bi gën a màgg ci dëkk bi dëkk dina doxee noonu yéen da ngeen koo ji ne ko li fi am mars ba léegi moo ko def gën xëy na léegi dañ koy amnistie effacé ko kon yéen criminel bi gën a màgg ci dëkk a koy effacé dëkk du mm-hmm. doxee noonu mm-hmm. bu dee mooy li ngeen wax noonu la amoon mooy criminel gën man leen ko mm-hmm. génnee mais bu ko deful yéen leen nag yéen ñi ko tuumaal ñu topp leen tamit ngeen dem tëdd ji kaso parce que da a sosal ko xam ne yoonam nekku ci dëkk noonu lay doxee te suñu justice bi am nañ matukaay am nañ jumtukaay mais expert mooy seen njëriñ ah, buñ ko amul ñu jël duñ duñ xool fu bal jóge ñu fere ñëpp ay bal lañ leen dóor te amul benn bu ci leer ñu ne bal bi fii la jóge waaw maa ngi dégg ñu naan bal bi ci la jóge réew moom nekk fi wóoratul mais léegi léegi te li ma jaaxal fu mu mënuñu xam bal bi fu ngi dégg démb am ñu naan nee nañ yenn yenn a boo xam ne benn manifestant dafa mm. si mës ma gi mës nañ rek benn image boo xam ne dañoo gis benn manifestant bu dégeene man nañ ma ko wan rek. Mhm. man suñ ma ko wane laa dinaa comprendre. man a ah, wax dëgg yàlla kon ci biir manifestant yi am nañu leen rax ñu yor ay bal mhm. parce que nag euh, fii lire ci si biir image yu bëriwul de ñu bëri journaliste yaa ngi ci biir di ko couvrir di jël ay image et puis direct lañ koy def mhm. donc manifestant yi lan ngay gis daw jël xeer sànni ak daw dàq ji nañ ko daw jël xeer sànni man de gisaguma fa manifestant bu armé di tirer à bout portant waxuma que su fekkee ne da nga kon cela suppose que ki tiire yow la jàkkaarloo kon manifestant bi dafa dem làqatu jàkkaarloo policier yi ñoo tiire la mais yenn yi tamit il faut que ñuy réfléchir tuuti ay xel lañ yor di xalaat bali nañu xool bali fu mu jóge ñu leen faat ñu àtte leen yóbbu leen ci yoon mais bu fekkee tudd ay affaire dialogue ak ay amnistie gis nga dëgg dañ koy waxtaan d'accord ci amnistie yow non d'accord ma ci amnistie pourquoi même su dee am na leer ba pare non mais nañu cité bi dafa dund ay fractures yu metti mhm. ay famille tas nañ ci ay sëy tas nañ ci lu ne lu ne dugg dugg na ci ay ñii ñii ñii faatu nañ ci ñi ñu tëj leen ci kaso bi loolu lépp ñu dund ko ñu bëgg a dajalee rek ne léegi au nom de la gas ba mu xóot daal di suul mais ji beneen président bu ñu fi ñëw mais da fal benn Mahfouz mu mere kenn mm-hmm. defati lu ko neex salfaan yi dig mu neex bii dem dafa am ne si dem gis nga c'est vrai dialogue dina am mais dialogue balaa moo am nañu nañu nañu teg ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo causé tort ñeneen si askan wi ba noppi mm-hmm. côté boo munti nekkee nag bu dee côté nga nekk wala côté bi ñi po causé tort askan wi mhm. nañ leen identifier su fekkente ne ci biir manifestant yi dafay am ñu leen rax ñu identifier leen ni ñoo doon fital ay manifestant lañ nañ leen enquête moo ko mën a wane loolu la ONU wax nañu ubbi enquête man je suis pour ñu ubbi enquête bu ko mhm. defee ñu xam ki def ñu xam ki deful bu ñu ubbee enquête nag xam ki def xam ki deful su boobaa bu ñu demee nag ba xam ne ñii jàpp nañ leen ñii nañ leen ñu dem que pour moins que mhm. nit a ngi ba léegi kenn leen am na ñoom ne bind texte lañ leen jàppee ñu ci kaso ba. Mm-hmm. mooy que ça waaw léegi yow léegi après nga toog nga ne léegi dañu bëgg a tegaat dëkk bi si yoon dañu bëggaat def nii léegi nañ dem toog waxtaan yi ñu daal di jël lépp ñu effacé ko waaw waxtaan de wax dëgg yàlla lépp waxtaan lay mujjee guerre mondiale sax waxtaan lay mujjee waxtaan lay mujjee waaye nag day tegu si dëgg nag mhm. waxtaan day tegu si dëgg day tegu si dëgg mais négociation avec Ousmane Sonko jàpp nga ni tey euh, démb sax am na loo ci joxe ah, nga ni Ousmane mhm. Sonko fi mu ne moom moo euh, moo bloqué yëf yi moom moo mhm. bëggul euh, jox suite à ces négociations jàpp nga ni Ousmane Sonko mën na ci négociation yi amee kan moo ci gagné Ousmane Sonko jàpp nga ni mën na ci gagné mën na ci gagné dara. non du ci gagné parce que fi affaire bu toll nii moo àpp au vent. nu mu àpp naan fi affaire toll moo àpp au vent. nu mu ngi mi ngi toog Cap Manuel euh, tëdd jàpp ñàmburam. Hmm. ñëpp di ko waxtaane ñëpp naan mi ngi dialogué mi ngi waxtaan mi ngi def nii mi ngi def ne te oro sax euh, waxul daf daful. Hmm. waaw léegi kon kooku àppul vent. koo xam ne ñëpp ngi naan bu suba suba bu ne woon tey ji délégué naa par exemple. Euh, Euh, Amadou Ba délégué naa Ayib Daffé délégué naa diw ak diw ak ñu dem waxtaani mais feet lay doon feet lay doon dialogue bi dañ koy lancé ginnaaw suba gi ñu woo observateurs yi yëpp ne leen gis ngeen Pastef a ngi nii seen leader a ngi ci kaso ñëw nañ toog waxtaan léegi Sénégal jàmm loolu rek lañ bëgg fi ñu nii de mais am na source bu wax loolu kese mooy seen bëgg-bëgg Macky Sall Ousmane Sonko wax nañ téléphone gise nañ waaw mais je ne pas peut-être yegguma fa wax dëgg démb am na démb am na am na source bu ko bu mm-hmm. wax loolu. mu ne Macky Sall en tout cas nit paas na ko mm-hmm. euh, Ousmane Sonko. Euh, euh, maanaam après waxtaan nañ ñoom ñaar gise nañu. waaw peut peut-être du ma ko weddi du ma ko du ma ko du ma ko dëggal parce que fi ñu toll information yi daw yi génn bëri na. Mm-hmm. da ngay génn keneen woo la wax leen nga génn keneen woo la wax leen comme yegguñu benn niveau information man dama ciy demee ak prudence. mais li may jàngat daal mooy. amu ci intérêt di ci dem. parce moom bañ ko jekkoo Sonko. parce que ñoom ñoom moom moo dugal boppam fii mu nekk nii di uh-huh. amoon président Macky Sall uh-huh. léegi bu fa dugalee boppam day xaar Ousmane Sonko génnee ko il faut que ñu cohérent ak suñu ay démarche moom ba mu koy dàq est ce que consulté na Sonko consulté ko mu dàq ko dëkk bi tàkk problème am nga ne naa ko naa ko génnee wala naa wax ak moom su ko defee dëkk bi daal euh, problème am c'est-à-dire dañuy dañuy dañuy changé disque bi nga xamante ne moo def problème bi léegi bu ñu demee dialogue léegi ñu fàtte ñetti booy yi faatu ñu ñu fàtte ñi ñi taal seen ay boutique mhm. ñu fàtte ñu yàqal ñu fàtte ñu fàtte ñu fàtte après ñu ne dem nañ dialogue libéré nañ Ousmane Sonko libéré nañ Diomaye léegi après moom ñu jox ko benn légitimité nag ne ko léegi toogal quelques jours nga diriger après nangam ak nangam boo pare nga dem non te du loolu mun la deux waroon dem le vingt cinq bi bu ko poussé moom moo ko pousse léegi loolu noonu lépp am nga bëgg Ousmane dialogue boo ciy dem lan ngay gagné taxaw ba muy dem bee passé dafa demoon pour bokk ji naa bokk rek Karim Wade ba mu demee dafa doon dem pour bokk ji ñu modifier code électoral bi ñu bokk Ousmane Sonko bu demee dialogue lan lay bokk ji. mais Moustapha mais Moustapha dogguma la mais xam su fekkente réew mi toll na fii tamit euh, yow nga ni da nekk benn acteur.